del Soda. xalamal na xalamal na Diouf xalamal Wade tey mu ngay xalamal suñu waay xalamal Wade man nga ñu ko xalamal lu ko ci am. ndax gars yi sax ne leen ku mu xalamal nga daanu nag. mooy le Mamadou Sénégal 24 milliards. Mamour Diallo Mamour Diallo Mamour Diallo Mamour Diallo ñun suñu cabinet tuddul Mercalex suñu cabinet mi ngi tudd suñu euh, cabinet mi ngi tudd euh, dama sonn way ci cabinet bu ngi tënti sax amu ben dossier buñ soulever ba ko bu toucher un certain homme d'affaires buñu tayru sa Tahirou Sarr. ba ñu naan ba le dossier des 80 waaw 80 ba ñu da nga ben ant yow war nañ la entendre parce que mele ci parce que am nga structure bu ci tak léralal sénégalais lan mo ci xew. mais yow xaaral ma terminé rek maa ngi ciy ñëw soo ma laajee daf may bàyyi ma terminé rek. aw ma cabinet bi tudd Mercalex. mais da nga gis nga waaw xaaral ma terminé. gis nga ñun suñu cabinet. Mhm. tuddul Mercalex. suñu cabinet mi ngi tudd. Euh, <laughs> mi ngi tudd euh, dama sonn waay ci cabinet bi ñu tëdd sax. ah <laughs> Non, non, non, de loolu Atlas la de Atlas Group. avec sa société Atlas. Atlas la de Atlas Group. ce document. Vous verrez, la signature de Sonko. avec sa société Atlas. Ismaël Abba, aussi bien dans Mercalès que dans Atlas. qu'est-ce qu'il dit le protocole d'accord le entre le cabinet Atlas. Ah, ah, Atlas, Atlas Group. Entre le cabinet Atlas, les héritiers du titre foncier 1451, vous en pas parlé hier, Diakate, Ibril Dial, Abdoumbeng, Massel Sar, Salih Ndiaye, Ibrahim Sam, qui cherche toujours de l'argent, qui fuient des qu'il est, et qui vole des terrains. Je montrerai les terres qu'il a volés dans le pays. Cet homme n'est pas crédible de 12% hors taxe retenue à la source des sommes ou valeurs recouvrées directement, indirectement par le cabinet le cabinet de M. Sonko. Oui, oh, déposé ma famille Là, il était présent à la réunion, la feuille de présence, je l'ai. Si vous voyez les présents, la feuille de présence est là. mot mi wuti billahi xaw ma famille ma famille. il y a réunion affaire TF 1451 avec le cabinet Atlas et les membres de la famille héritière. Amadou Sissé, contact 70 Djibril Dial Ousmane Sonko. Il n'ai pas son numéro de téléphone, mais il signe quand même. Mais il y a, lui, après, immédiatement, il y a Ismaba, son homme de confiance, dans son parti comme dans les affaires, il l'utilise. Et qui signe toujours à sa place. Ismaba et lui n'ont pas mis, vous avez vu les deux, les, cages libres là, vides. Vous avez vu deux cages vides.

ban banque la ñu defee li ñuy def ban banque moo fay 46 milliards yi ko jox numéro compte bancaire Mamour Diallo am ndey am baay am ay doom am soxna jàng bañ ko jàngaloo ba nekk kaasa bi Sonko génnee ñu affecté ko Kaolack moom ko teeru Kaolack ba doon patron Sonko ak Kaolack xam naa ñaan na ko ay yoon ñaan na ay yu ma leen wax ko déet am du da ngaa demoon inspection SICAP napp leen jox la terre yi ko mu jël ci douze mille cent mille onze milliards mooy protocole d'accord voilà protocole d'accord assurance mu ne am na ci douze pour cent douze pour cent yaa ngi nii bu ma jëlee daal daa ngi am douze pour cent waaye dafa dal Ousmane Sonko ay dëgg métti lu ñuy wax une réponse salée daanaka lu war a mat at lu ne yàqoo ci sama tànk bi imam la mooy jiite jàkka ji foofu jàkka joo xam ne moom moo ko tax jàkka jàkka ji dend ak këram. kër Mamour moo nekk nii macha allah Louga. gis nga voté Macky le bilan. jumaa jaa ngi waaw jumaa jaa ngi nii te lii Mamour bëggul musu xam naa ne bu gisee ma filmé ko dina nag. juddoo fu baax ñu baax xaw ma lu ngor xaw ma foofu la ñu soxla ko xaw ma ñu jom ak liggéey politique tax politique rek tax ñu jël mel noonu di ko teg sama kaw de waaye nag yàlla bi dara teewul te nga xam ne mooy àtte te bu jotee mu àtte waaye mbokk yow ci borom àtte you.